al ibadatu wal di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa mbokk mi di laaj ci lu aju ci idéologie parti yi ci réew mi ñuy di dàkkantale seen bopp ay communiste ñi ay libéraliste ñeneen ñi ay socialiste yooyu waaw xam nga euh, bi deuxième guerre mondiale jàllee nga xam ne confrontation peut-être physique euh, mën nañ ne amatul woon xeex bi ñu continué di xeex tuddee woon ko guerre froide euh, ay xeex yooyu la fexe kenn ku nekk di loo mën a ruusaan ci ay réew ci àdduna bi rek ngir ñu bokk yow gis-gis nga di ko def di doxe ci sa idéologie euh, yenn état yi booloo woon ne ñoom ay libéraux lañ du làng ñeen ñi des communiste yi bari seenub làng léegi nag di fexe ci euh, li nga xam ne mooy yeneen réew yu néew doole yi wala yi nga xam ne rek moom àlakulal ay àll doon di leen gax seen ay gis-gis seen gisinu àdduna bu defee ñoom ñoo ñu fa nekk nag bu ñu sosee ay parti kenn ku ñu nekk sa parti yaa ngi xool te ka ka nga jàpp ne moom mooy sa parrain nga ndayale ko ko wala nga bàyyale ko ko bu defee sa parti ca idéologie boobu lay dàkkantaloo te njalbeen gën a xañ na euh, les gëmoon la euh, di doxit ci ay sart yi nga xam moom moo ko tënk waaye biñ demee ba nga xam ne agsi nañ ci date bi ñuy wax 1989 avec la chute du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes nga xam ne ci biir Allemagne sax dafa amoon ñaari xaaj benn mur lañ ko séparé woon ñii ay ci démocrate yi lañ bokkoon les libéraux ñi nekk ay communiste bokk ci Union soviétique euh, bi loolu jeexee nag ci lañ gis ne euh, idéologie yi ci bëree bëri nekkatul réalité ay tur rek moo fa des xam ne tur yi nag parti yi ci bëree bëri daal di wuñuy sotti seen ay tur dañoo continuer bàyyi ko nañ leen xam ne woon donte am na ci yoo xam ne sax soppi nañ seen waaye li ma tóor mooy idéologie moom doxatut rawatina fii ci senegal ndax bu doon dox sax da gis ne kii wuyoo communisme àdduna du yàgg ak koy yàgg ba mën a maanaam lëkkaloo ak ki nga xamante ne bi moom dafa wax ne moom ab libéral la wala yu demee doon nga xam ne da gis léegi Euh, euh, euh, ku jóge ci commune si ñëw seey ci ab parti libéral wala bu coalisé ak moom dem ba ci àgg sax mu seey te loolu maanaam union contre nature lay doon maanaam bu dee ci wàllu cadre politique ak seeni gis-gis nga teg ko ci taabal ji càmba maanaam comparé ko day mel ni góor ak góor buy sëy wala jigéen jigéen union contre nature lay doon kon loolu bu ñu ba muy am ba nga gis ñuy jaxasoo benn jaxasoo bi da nga xam ne kon léegi euh, amut loolu amatut idéologie yooyu kon amatut rawatina fii ci biir réew mi kanta bu ci gën a jege lislaam non loolu jàpp naa ne sax moom du jaadu ñu naan benn moo ci gën a jege lislaam ndax bi nga xam ne ne ñoom ñu ngi samp idéologie yooyu amu ci benn boo xam ne référé wu nañ ci lislaam moom nga xam ne kon bu fekkoon am na benn point wala ñaar wala ay benn ay quelques kii yoo ci gis lu ñu gis ne lii kat am na lu niroog islam fii da xam ne hasard la mais du jubluwaay bi du loolu te booy xool euh, ci doxalin yi xañ na maanaam li li ci safaanoo ak lislaam moo ëpp kon jàpp naa ne ñoom ñëpp ñoo yem vis vis ak euh, lislaam ci jëm boppam waaw mbokk mi di laaj eh, lu aju ci ni fale président mu ne nañ koy fal ci programme te bañ koo fal ci kii moom a neex loolu nag moom euh, laaj la boo xam ne tontu bi du du kenn nit rek moo ko yor ngir man ne léegi nii lañ koy defee dootuñ ko defee nee problème la boo xam ne solution bi moom du benn nit moo koy décider. xam nga nekk ci démocratie te démocratie euh, maanaam dafa nekk loo xam ne lu doy waar la fëtt na ci wàllum élection ki xam nga xam ne tey boo bu élection ñëwee day teg programme yëpp càmbar xool ban programme moo ci gën a méngoo ak njëriñu réew mi mu tànn booba moo ki nga xam ne waxuma la lire programme yi waaye du gis sax programme yi ñoom ñaar ñi ñooyam yem ñoo yem doole ci démocratie ci wàllum élection rawatina ko ci ne benn carte rek nga am léegi laaj bi kay kon mooy ndax démocratie day riime ak ignorance wala maam démocratie ndax ànd na ndax méngoo na ak li xam mooy ak ñàkk xam waaw loolu mooy problème yi ndax bu fekkee ne ki xam lépp ak ki xamul dara maanaam ñoom ñoo yem doole ci wàllu kon kooku démocratie moom moo am problème kon dañuy dellusiwaat rek ci la waxoon ne euh, démocratie moom mu ne la meilleure la meilleure mauvaise solution mboolem solution yi fi nekk te yépp bon démocratie moo ci gën moo ci tane loolu day wane ne rek dafa matut dafa dafa dafa imparfait léegi nag day des ci maanaam ñu gën a doole li ñu tuddee maanaam éducation citoyenne par exemple boo demee ci yenn réew yi fu mel ni états yi boobu nga tëdd tudd euh, daanaka askan wa kenn ku ci ne mën naa doon président daanaka en tout cas la ëpp pourcentage ba gën a kawe ëpp ëpp ba not ci askan wi mën nañu jiite réew mi boo demee France gi pourcentage bi not ci askan wi nga xam ne ay citoyen simple la ñu doon mën nañoo jiite réew mi tey yitte woo nañ yemuñ ci man koo jiite rek xam waaye yitte woo nañ mbiri réew mi am koo ci fëkk ci nelaw laaj ko euh, maanaam tolluwaayu politique gu réew ma wala euh, enjeu politique yi ak économique yi mu jox la ci ay réponses yoo xam ne di ci mën a jàpp donte di nga soxla mën ngaa soxla yenn détails yokku yokku loolu mooy tax ba Euh, benn obscurantisme bi dootu fu mën a ci wàllu tànneef xañ na kay la ñuy def muy nekk loo xam ne ñun dañ koy mën a critiquer ndax du du du du ànd ak éthique bu bu méngoog diine ci xeex ko loolu yëpp seenu jubluwaay lay doon waaye ñoom xañ seeni intérêt personnel ñoo bu fekkoon ne nag tey nga xam ne kon loolu tax na ba ñoom seen président yi li ñuy doon doon ay président seeni pouvoir dafa limité ndax jiite mbooloo moo xam ñëpp dañoo maase xam daa yemu ak giide mbooloo moo xam ne la ca gën a néew rek ñoo xam ñu yittewoo mbir yi loolu loolu moo ci nekk kon nga xam ne bu fekkoon ne loolu am na fii tey kon euh, tànneef bi dama soppeeku te kenn ku nekk tànnin bi ni ñu la tànnee day day influencé day day feeñ day am jeexit mu mag bu am solo ci ni ngay doxale boo boo ni ngay gouverner boo waaw mbokk mi laaj lu aju ci suñu président yi seen doxalin yi ndax ñu ñoo xool ci Thomas Sankara ñu roy ci moom waaw loolu lu am la ndax xam nga bi nga xam ni am nañu indépendance président yi njëkk am ci Afrique Afrique maanaam après indépendance juste président yi njëkk njëkk am seenu ku falu tubaab bi da ci amoon doole lool ba ñu ci bari sax mën naa jàpp ni daanaka ñoo leen parachuté rek ñoo leen fi teg ñu wutu leen fi ndax biñ fiy jógee teewut am nañ fi ay intérêt yu baree bari yu ñu war a yu jàmpoon ak yoo xam ne jàmput waaye lu ñu war a topp la kon day baax ci ñoom ñu fexe ba ki fi ki leen fi wuutu ki leen fi nekk doon seen ndaw ñu bàyyee fi bàyyeen di fi sax seen yenn yenn benn benn élément ñu leen gunge ndax miin nañ sax ci ay gouvernement africain yi ay ay ay ay weex nekk ci nekk ay ministre wala ay euh, yu am occupé ci ay post yu am de responsabilité yu am am solo bi nga xamee ne nag loolu am na am na ci président yoo xam ne bi ñu faloo dañoo ñëw fas yéene càmbaraat euh, mbir yi maanaam jël beneen doxalin boo xam ne jàpp nañ ne moo ëppal solo réew mi euh, tege na li intérêt yi tubaab yi muy français yeeg belge yeeg ak nangam nangam ñu ñëpp bi nga ne doxal nañ ba ci biir nag tubaab yi ñoom it dañu xool ñëpp ñu nga xam ne jàpp nañ ne ñi ngi fi ngir li leen neex ñu ngi leen di sàmmal seen ay njëriñ seen ay euh, intérêt tey ak ëllëg ñu fas yéene leen dooleel euh, ñu yàgg fi ñi nga xam ne nag ñu ngi leen di menacé maanaam ñu menacer seen i intérêt euh, bëgg jël yoon woo xam ne bokkut ak leen jublu ñu fas yéene leen fexeel bu ñu leen di fexeel it euh, duñ dàq benn yoon woo xam ne jàpp nañ ne dana tax ñu gën a am efficacité ci li nga xam ne mooy seen projet boobu xaj na loolu moo feeñ ci Thomas Sankara moo feeñ it xaj lu mu Lumumba ak ñeneen ak ñeneen ñiñ fi bàyyi mën nañoo jàpp ne xaj na ñoom daal ñoo ñoo ñoo leen fi nekkaloon te bu ñu xoolee ci histoire wane it dana yanu maanaam fii ci Sénégal ak Senghor nga dem Côte d'Ivoire ak Houphouët ak yeneen ak yeneen waaye dafa am leneen loo xam ne tamit point bu am solo la <clears throat> mooy am na ñu fi nekkoon ñoo xam ne jotuñu a nekk président waaye teewut doon nañ teg projet de société bu am solo doon contrecarré mboolem loo xam ne initiative bu tubaab bi la. pour mu gën ñoo mën a not doon ca dox guddeeg bëccëg ñoom it doon nañ leen xeex waaye xam nga ki doon président ak ki doonul président maanaam duñ yam dayo waaye sax ki ko ki ko doonul mën naa gën a euh, ëppule efficacité ci kombaam ëppule sens ëppule tamit li nga xam mooy dëgg dëgg solo ndax boo jëlee ko mel ni Cheikh Anta euh, jafe na ci xam naa ne ku mel ni moom ci Afrique ndax dafa boole woon ñaar dafa boole di di xeex maanaam indépendance nit ku ñuul rawatina ci kaa ci xam-xam di indi lu scientifique loo xam ne kenn mënu cee maanaam indi ay jiixi jaaxa da pare sam parti politique maanaam di dëgërale ko loolu euh, di di di maanaam di boole woon na ci sax ci wolof yi ci kàllaama wolof bi rek promouvoir na ko ba sonn tey bu fekkoon ne ci ay dogalam ay ay xalaatam mujj na nekk antu na day amul benn xeetu xam-xam boo xam ne duñ ko jàng ci ci wolof nga xam ne kon analphabète li ñu tuddee analphabète dootu am ci réew mi waaye moom it dañ koo xeex xeex bu met ndax ba ni faatoo sax nekkul professeur titulaire université te ci koo xam ne ci ñu ci ci maanaam ci jamonoom amut ku ku ku amandoo noonu ndoo woon ak moom xam-xam ci àdduna bi la ñuy laam-laame waaye réew mi moom waxuma léegi nga gis ne kon moom ci wàllu politique amit ci clandestinité dong la nekkoon am doon sax daanaka parti boo xam ne parti bu saña a affirmé la li mu doon def lépp ci nëbbatu la ñu ànd ak moom ñu leen ni topp guddeeg bëccëg nga xam ne tey loolu ñu ko doon def moom tubaab bi rek la waaye dañ doon jëfandikoo koo xam ne président la ni ci réew mi waaye mu jàpp ni ñoom la fi nekkal kon mooy loolu ma la doon wax ne la ñu fi leen ñi président yi fi nekk ginnaaw indépendance ba pare continuer seen i mandat ba mu àgg bu ma niwut ñëpp xam naa ne ña ca gën a bari moom tubaab bi lañ fi nekkaloon kon bu fekkee dañoo bëgg ay delluwaay ñoom président yi ay des ci ñoom ñu xool ci ku mel ni Thomas Sankara wax nga dëgg waaye ñu xool ci ku ku nekk lay gën a jege. ndax Cheikh Anta moom li mu fi bàyyi ñii fi te dëgg yàlla ba tey jii nii euh, maanaam dara raafu ci dara raafu ci képp kon kon soo royukaay moom ci wàllu leadership Afrique moom rafle wu ko te mosu koo rafle ñu ngi des ci volonté wu rek ñi nga xam ne ñoo sóobu ci politique nan la ñuy fexe ba àgg ci yoon boobu te yaakaar it mën nañu jàpp ni am na ndax liñ seetlu mooy nit ñi daal fi mu nekk nii moom bëgg nañ dëgg te mel na ni euh, jaral na leen lu lu mu leen jaralutoon am na nag ñu ngi ko jaraloon loolu tekkiwut ne jaralu kenn waaye ñu ngi ko jaral léegi xañ na gën naa bari ndax euh, xam gi maanaam gën naa gën naa yàqu xam-xam maanaam li nga xamut xañ na doo ci mën a sori waaye li nga xam moom xam degré de gravité ak ni mu ñàkkee jaare yoon ak yooyu Euh, ci ngay gën a sawar ci xeex ko loo xam ne doo ci am accès te bu njëkk information yombul woon ñu euh, bare bari tasaaroo doon te léegi moom daanaka mënee surtout nëbb mënee surtout te mënee nëbb dara dara euh, kon loolu laa amoon ci laaj boobu. waaw mbokk mi laaj laaj bi jëm ki assise national bon ba wax ne président bi signé woon na ko dem ba ci biir appliqué wu ko. ndax lu kii la waaw assise nationale nag débat am na ci débat am na ci parce que am na sax ñu jàpp ne wóoruloon tudd assise nationale parce que euh, composante société bi yëpp xañ na bokkuñ ci woon ñoo ci ëppoon rek mooy ñi nga xam ne euh, mën nañoo jàpp ne ab kujje doxoon na seen diggante ak ka fi nekkoon jiitu réew jamono jamono yam doon am muy laaj ndax rek la wala lu ki euh, débat daal am na ci waaw waaye du du luwaa daal ak lu mën a xew du luwaa boo xam ne askan wi ñoo ko ñoo ko ñoo ko voté du it loo xam ne lu tukkee ci révolution la boo xam ne ñëpp ci maase waaw donte am na yu ci bari yuñ ko jógee yu ko yuñ ko jukkee tënk ko yoo xam ne xañ na buñ ko toppee mën naa jóor yu mu waaye maanaam provenance bi fa muy jóge dogal boobu euh, xalaat yooyu di jóge euh, euh, ak njureef boobu dayob loola day day dafa dafay amal solo gën a amal solo mbir mi xam nga ku ne mën naa wax lu baax ku nekk mën na ko wax mais est-ce que ku ko wax rek dañu ko war a jël jëfe ko waaye bu ñëpp maase wax ko askan yëpp ñu ci maase laam-laamee dootu ci am ki ki nga xam ne moom lañ jox muy assemblée nationale par exemple tey mooy représenté askan wi ak ci luñ mën a wax lu fa lu fa jóge bu baax ku ci d'accord it amatoo ci pexe kon euh, maanaam auteur yi de yenn décision yi maanaam dañuy seen dañuy dañuy feeñ seen doole day dañ koy transmettre ñoom dogal bi nga xam ne jël nañ bu fekkee ne nag loolu amu ci doole jooju amu ci maanaam comme neex mën nga jàll sa gis-gisu bopp ñi tëw mi sax xañ na euh, bokku doon ci ña ko doon élaboré signé wu ko woon tamit ci njëlbeen ga waaye bi ñu demee ci élection yi ba diggante deux tours yi dem na si ji ko waaye bi mu dox bi mu bi mu bi mu bi mu fal euh, comme ni ñu ko waxee appliqué wu ko xañ na signature boobu am na lu newoon ci ginnaaw wala bon loolu moom moom moo ci mën a moo ci mën a indi ay leeral waaye li wér woo daal mooy euh, dafa am problème yoo xam ne buñ ko bëggee saafara faaw ñu dox ci de manière graduelle maanaam dox ci euh, étape par étape wutal ko ay solution yi ci maanaam ay solution yu jàmp ay saafara yu jàmp ñu wutal ko ay saafara yu jàmp yi nga xam ne wóor na ne mënul am ay saafara yu jàmp ñu wutal ko lu ñu tuddee ay solution long terme am na court terme moyen terme ba long terme euh, dafa am loo xam ne nag euh, maanaam mënoo cee àgg te jaaroo ci jaaruwaay tey lépp kuréel boo xam ne sentir nga ne yow yaa ngi ci réew mi eh, yaatu nga fi maanaam te it am na ñu la ñu lay déglu loo xam ne buñ sañoon nga am doole buñ sañoon nit li ngay def day jëm kanam ndax gis mu yaatu tasaaroo ndax xam nañ ne ci la njariñu réew mi nekk su boobaa day des yow nag nga daal di jël say responsabilité xam nga taxaw di dénoncer li nga xam ne warut am moom ku ne man na ko loolu pouvoir contestataire ñëpp ko am. tey man su ma neexee mooy dugg ci internet bi wax li ma bëgg a wax teg ko rek naa ko teg rek ci eh, fi ma ko war a teg dara man naa ci mën na ma ca bañ fekk waaye wax moom danaa ko dénoncé waaye su ma ci saxee bu yàggee it eh, dama war a jéem a dem ci kanam daal dem jëm a def lépp loolu léegi da ngay da jéem a fexee nekk une force de proposition lu mu néew néew baax na par exemple tey bu fekkee ñoo gis ne chaque période ñi ngi daara yi ñi ngi mën a si ñu am ay problème euh, léegi pourquoi pas daara yi au lieu taxaw di di dénoncer di dénoncer rek injustice boobu ñu leen teg mu ne a ah, fa ñuy décider nañ ko jéem a dem ndax suñu xalaat euh, ndax duñ yem sax ku boobaa ci di défendre suñ bopp rek nekk su la défense yi mais li ñuy mën a proposer waaw ndax xam nga tey am na am na loo xam ne buñ la ko dee teg ngay bañ boo nekkoon fa fa nga xam ne fa la ñuy décider nga proposé am na proposition yoo xam ne boo ko defee xel dootu xalaat sax wëlbatiku dellu ginnaaw di la teg yenn tegeef yi donte proposition booba du doon loo xam ne lu ñu mën a lu jàmp la kon nit ki il faut yaay boole sa bopp yaay dem imposer sa bopp dem ba àgg ci niveau boo xam ne di nga mën a proposer dara am au moins une force de proposition force de proposition boobu boo ci jógee assemblée li ñu proposé tey boo fa jógee mën ngaa dem ba am au moins un pouvoir d'exécution maanaam tey mën nga jóge man ku dem ku dem assemblée tey euh, di proposer am possibilité proposer ay loi mën nga dem tey ba ba politique waral nga bokk ci ci ñuy jël ay décision ci ci exécutif su boobaa la la fa yóbbu xam nga ko ña la fa ña la ña la ña nga ña nga bañ teg la ci position boobu xam nañ la la may doole kon yow ñooñu nga da nga leen bàyyi xel parce que politique la politique mooy maanaam euh, fexe ba exercer pouvoir wala nga jël pouvoir maanaam wen wëlbati ba mu euh, sàmm say àq say intérêt ak say intérêt yi ñoñ waaw mboolem groupe yi nga fi gis ñi mu xam parti politique la euh, wala mu nekk li ñuy tuddee ay groupe d'influence loolu mooy seen rôle kon loolu dara nekku ci jàpp naa ne étape boobu tamit il faut ñu jëm ko boole ci mbir yi au lieu de nekk rek chaque jour sur la défensive di yooxu di yooxu di yooxu bu yàggee tamit euh, day metti daal maaleykum rahmatullah mbokk mi laaj laaj bi jëm ci définition mën naa ne nouvel ordre mondial mu ngi dafa am borom xam-xam bu mu liir mu wax ne ay doxalin la yoo xam ne dañ ci génne ngëm-ngëm ak euh, li nga xam ne mooy diine te ko ci xam-xam rek ak i pexe waaw mu ne am ku wax ne eh, kii la rek jumtuwaay la rek boo xam ne kenn ku nekk na ko xam nga booy définir yenn concept yi doo mën a joxe benn définition dangay lim euh, man bi ma koy définir dama wax ne maanaam lii lay teg ci cosaan waaye dem na ba am ñu koy jël di ko firee neneen ndax dangay jël baat bi li muy tekki ci li nga xam ne mooy langue bi ñu koy waxe nga jël cosaanam li ko indi li muy tekki waaye nga wax tamit yeneen ñi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo ci yeneen anam lañ ca jublu ni moom lay tekki leeraloon naa sax ne euh, buñ ko waxee rek xel dana dem ci li ñuy tuddee ay théorie du complot nga xam ne tey euh, nit ku ëmb dara ci biir la loo xam ne mbiri boppam la bokkoo koo imposé wane ne nii fii la ñëpp war a jaar euh, te lam ci defañ intérêt boppam rek la ak euh, lor la it ñeel ñëpp ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu moom ay intérêt wala lam jub bokkuñu moom en tout cas jubluwaay kon loolu mu wax lu wér a wér la benn la ci définition yu nouvel ordre mondial te mooy bi gën bi bi bi nga xam ne moom lañ gën a duut baaraam euh, moo tax ba sax buñ tuddee baat bi ñu bari jàpp seen dënd am ñoo xam ne bu ñu amee soxla ci baat bi sax dañuy dañ koy jëfandikoo dañ koy waxee naneen pour moytu dara ndax tey boo taxawee def sa discours du nouvel ordre mondial wax ko ci sens bu positif rek am na ñoo xam ne automatiquement dañ naan ah sa waaye jëy nàngam mbaa du moom defe ne sax yow bokk nga ci ay yi wala dara loolu kon lu am am la waaye tamit kooku ni mu jëlee baat bi ñooñu ni ñu jëlee baat bi maanaam dëxëñ ci loolu fexe ba maanaam nga di ko jàppe noonu it mën nga jël baat bi wane ne lii la war a doon warut a doon lee loolu loolu gisin la xam naa loolu foofu la suñ boobu bëgg a waxee ba tax mu ne maam jumtuwaay la rek lii na ci biir moo am solo tey bu ñu gisee ne àdduna bépp dañoo war a maanaam euh, référé ci méthode du l'islam ñiy théoriser loolu maanaam euh, di ci dox guddeeg bëccëg di fexe mu nekk application bu réel ci terrain yi ñooñu dañoo définir benn nouvel ordre mondial bu bees ñoom tamit bu leen neexee ñu tudd ko noonu ba ñu soppi dara ci tur yi mais ñu wane ne nouvel ordre mondial te du waaye lii la te te am na nouvel ordre mondial bu bu naturel sax bu xam ne dafa mel ni dafa favoriser l'islam ndax mooy diine ji nga xam ne euh, fa mu gën a tumu gënoon a tumuranke euh, te ña ko gën a wan ginaaw nekk fa fa la ëppee ñuy fàq ji ci dugg jamono bu nekk jamono bu nekk muy Occident te ñi nga xam ne ñoo gënoon a sax ràññeeku ci xeex ci xeex ko euh, parfois dañuy dem ba yam te yamukaayu waaw maanaam mujj wëlbatiku ñëw tàbbi ci biiram kon loolu man nañ ko gise noonu xam naa loolu laa ci doonoon mu ngi jégalu jaajëf waaw mbokk mi de ñoo ngi lay ziar mbokk mi waa laaj na laaj bu am solo nan lañu war a demee ci maanaam participer ci yooyu ba nga xam ne nouvelle ordre mondial bi nga xam ne mondialisation la globalisation la ñu mën cee imposer wu mën cee bay suñu waar dañuy fexe ba bu ñuy ñu demee ca ndaje ma rek am lu ñu yóbbu te bañ di jëli rek waaw te ñu dañuy jëli rek te moo ne mën na am lu ñu yóbbu ndax bëri na ay réew yoo xam ne boo delloo tuuti ci ginnaaw ay at yu néew ñoom Sénégal ñooy amoon niveau de développement wala ñu ëppale leen ko euh, te développement dafa nekk loo xam ne dafa lëkkaloo ak aada lëkkaloo culture dafa bëri yu mu lëkkalool ci réew ay réalité am yoo xam ne bu ci nit ki tënkoo rek. maanaam day am day day mel ni garab gu sax ay reen maanaam day day day dëgër bu ko defee lu mu te mën a doole rek euh, day day mën a jëm kanam waaye li fekk reen yi sampuwut moom ak garab bu maanaam du mën a màgg moom waaw li fekk reen yi sampuwut ba dëgër wóor lu mu taw taw it sampuwut daal euh, léegi nag dañuy toog réew yooyu dañuy toog fii di leen tudd Corée ci la bokk Chine gi ci la bokk la leen tax a développé jàpp naa ne du dem jiggaani fenn leen waaye dañoo concentré wu ci seenum réew xool li nga xam ne mu leen yàlla may ñu yee lépp yi doon nelaw ci ñoom loolu nag njiit lu am maanaam ku am njiit lu am xam responsabilité ku amub dogu maanaam moo ko man léegi nag moo ko defit ci ñoom la mbir yi tàmbalee waaye Sénégal gi tamit loolu mën na fee nekk ndax bëri na lu fi nekk ci ay valeur bëri lu fi nekk ci potentialité bëri na tamit loo xam ne yàlla may na ko askanu Sénégal nelawuñ de ñu xarañ lañ di nelaw ci ñoom bu yeewoo ñu maase dem ci mën nañoo dem ba ñuy dégg fu ne su boobaa lépp lu ñu war ci àdduna bi dañuy woo te buñ demee wuy yi dañ déglu suñu xalaat ñu bari danañu roy xool nan lañu def ak si fii su boobaa nag kon ñun suñu kon da dem lu bari nga gis ñu koy defee ci bërëb noo xam ne eh, ni ñu koy defee Sénégal la defee lañ ko jéggaane ndax lan parce que Sénégal da ko da ko da ko def da ko mu jural ko développement parce que nag état yi moom réew yi àdduna bi maanaam li ñuy wax la course o développement maanaam développement rek fa la ñuy njëkkante jëm kenn ku nekk yaa ngi fexe noo nooy def ba gën a développé sa morom nooy def sa morom mi la raw nooy def ba ci nekk sa ginnaaw du la jot kon yow boo wanee li nga am nga mettre ko en œuvre ci ni nga ko war a defee ba mu jural la développement faaw ñu roy la te ki lay roy da lay royaale maanaam ak élément yëpp nga boole ba mën a accéder foofu te am nañ ko liñ ci mën a dabaatal muy li jàmp dañ koy def li nga xam ne liñ ci mën a dabaatal dañ koy def li nga xam ne court terme la ñu def ko li nga xam ne tamit long terme la ñu taalalu jëm jëm investir vraiment ci xale yi surtout ci xale yi surtout ba fekk euh, dix ans vingt ans ñu am société boo xam ne day jeune ba pare day dynamique ba pare day am ay valeurs yu nekk ci moom yoo xam ne day méngoo ak valeurs yi xam moom la moom lañ fi jëmbatoon loolu daal mooy sama tontu fi laaj boobu. al ibadatu wal xidma jóg ngir sàmm ndonal xam-xam ak laabiire ko